asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bismillahi rahmaani rahim. mbokk yi dañu ñëwoon tey pour waxtaan ak yéen. ci fii àdduna bi tollu tey ci melokaan. te muy lu am solo. waaw ci doxalin wi nga xam ne mu ngi xew ci biir doomu aadama yi waaw ci ëppante doole ak ci jaayante doole waaw ndax li tax ñuy wax loolu mooy toll nañ ci jamono foo xam ne boo sàccee nag ñaari weer ngay tëdd kaso ñu bàyyi la boo sàccee ganaar mën nga tëdd fukki at loolu lañ constaté ci jamono jii ci àdduna bi fépp la nag dafa mel ni daal yowmal qiyaam sunu boroom tëkku na ci ba tey wax na ko ñetti téeméeri yoon ak ñeen fukk ak juróom-ñett cent 348 fois yow ma yi nekk ci alquran yépp noonu la toll te li ci ëpp nag ci yow ma yooyu lépp yawmal qiyaam bis penc la yàlla di wax waaw ngir rek jëf yi bon yi nga xam ne mu ngi am ci sunu biir waaw rey nit te yaa ko tey ñu bàyyi la ngay taxawaalu loolu yépp bokk na ci li nga xam ne dafa mel ni ñun gëmuñu bis penc ndax bu ñu gëmoon bés penc xam ne bu keroogee jaam yépp dañuy teew fi kanam yàlla ñu teg fa ay balance nag pour peese jëf yu baax yi bon yi bu ñu gëmoon bés boobu kon dana am jikko yoo xam ne danañ ko seet ci nu biir ñu jëm ko bàyyi waaw ëpp nit doole wan ko ko soxna soo xam ne mu ngi sëy jotee boroom këram wax ji dem ca kaw ay nit fexe fële fexe fexe fexe fexe ba teg ko ci yoon wu mu tasee waaw te ñu mënoon ko defar te defaruñu ko mu dellu këram wante dañuy fexe rek wan ko yoon wu muy jaar ba tas topp jëkkëram nag pour toroxal ko te am nañ njaboot nga yaakaar nag ne loolu dinga ko def sa boroom kër ba pare say doom mën a baax du mën a nekk déedéet yàlla du ko nangu yow mi fexe ba tas ko itam boo ca yemoon sax baax na waaye danga koy jéem a takk bon nga xam ne njub amul loolu yépp nag subhaanahu wa taala dara réeru ko ci waaw boo yaakaaree ne ndëbb nga sa bopp xamal ne yàlla li nga def lépp yëg na ko moo ki malakaam moo tax mu indi yow ma yooyu ba wax ci ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett waaw mu ne yowmal qiyaam bis la boo xam ne yàlla danañu boole ñun ñëpp ci benn barab mu tegal ñu ay balance nag pour ñuy peese suñu jëf jëf yu baax ak jëf yu bon ha bu keroogee nag képp koo xam ne sa jëf yu baax moo ëpp alquran nee na yow yoon wu ñu gërëm day am nga ko yoonu positif maanaam yoonu jàmm am nga itam dund bu ñu gërëm waaye ah képp koo ci xam ne nag sàggan nga ba sa jëf yu baax tuuti woyof sa jëf yi bon ëpp ko li nga def ci lu baax lu tuuti la li ëpp ci li nga def lépp jëf ju araam la nee na kooku moom xaawee rek mooy nekk këram mooy safara yàlla ñu ci yàlla musal bis la boo xam ne bu jotee ñépp dañuy ñëw ci kanam yàlla nekk ay jaam nag ñeexal ko subhaanahu tabaraka wa taala alquran sax àdduna ci sax wax na ci nee na in kullu man fi samawati wal ard ila ati rahman abda laqad ahsaahum wa addahum aada wa kulluhum aatihi yowma alqiyamati farda ci suratu maryam alquran nee amul kenn koo xam ne lu may ba yowma alqiyamati jotee soo dikkee di ñëw ci kanam sunu borom subhaanahu wa taala foofu doo fa ñëwee ay galon de ay garaat doo fa ñëwee ay mbag yu diis doo fa ñëwee ab sang doo fa ñëwee ak marabu da nga fay ñëw rek nekk benn jaam bu xoyof ñi xaal subhanahu wa mu ne keroog bu ñu ñëw nag ci yàlla subhanahu wa mu ne kenn kenn la ñuy dikkee de kenn du ànd kenn ba yaakaar sax ku lay xettali wala ku lay dimbale waaw kenn du ànd ak kenn bay séentu sax ku lay roqandi waaw mu ne loolu mooy tekki kon ne yowmal qiyaamati war na xam ne luy ñëw la amul benn sikk sàkk alquran nee na wa anna saata la aatiyatun la rayba fiha wa anna laha yabxasu man fil qubur am na itam fu waxee ne wa na saa aatiyatun la rayba fiha wa anna laha yabxasu man fil qubur ci suratul hajji kon kenn du werante ak dikkam jàngoon na nitam ana saata laa rayba fiha walakin aksara naasi laa yuminoon loolu mu ngi nekk ci suratu xaafir yi am na feneen fu mu waxee ne inna saa aatiyatun akaadu uxfiha li tajisiya kullu nafsin bi ma tasaa ci suratu taaha kon daal loolu mbokk yi kon loolu yépp ay mbir la yoo xam ne ak yeneen aaya yoo xam ne sax dafay tekki rek bés penc loolu ñu war a xam ne luy ñëw la ci lu wóor la nag benn sikki sàkk nekku ci subhanahu wa mu ne képp koo xam ne gëmoo nag loolu ah sag njulit moom wérut ndax bokk na ci sartaay julit nga gëm bés penc gëm yonent yi gëm euh, euh, malaayka yi kon bu fekkee gëmuloo bés penc mën nañoo dogal ne yow sag njulit moom dara leeru ci looloo tax sunu borom yowmal qiyaam mu tudd ko cent 348 fois waaw ñetti téeméer yoon ak ñeent fukk ak juróom-ñett kon loolu <coughs> mooy tekki rek ne bés penc mu ngi ci yoon yaa ngi waaxu jëm ci moom moom it mu ngi waaxu jëm si ci yow ndax bés boo yeewoo rek tekki nañ benn bés ci si des ci sa at mi sa at yi saa yooyu yeewoo rek mu dee alxames la wala ajjuma wala samedi samedi jooju da dootoo ko dundaat ba yomal xiyaam wàññeeku ne ci say at akon ah, ke yaa ngi jëm bés penc alxuraan tudd na ko mu ne yow ma yooyu yépp nag yi ci gën a bari yépp suñ borom mu ngi ci jublu rek bés penc loolu ma tax ñu xam ne kon yomal xiyaam bés la bu màgg ay kiimaan itam bari na lool ay méttal itam bari na lool ay tiitalam bari na lool ci jéggi na dayoo kon loolu mbir la yoo xam ne nit ñi war nañ ci bàyyi xel bu baax ëpp doole nit jaay ko doole nangu suufam teg ci doole atte nit wan ko doole te yow dafa mel ni bis bii ñëw ci yow danga ko fàtte wala gëmuloo ko soo ko gëmoon di nga bàyyi xel loolu waaw suratu Baqara yàlla ngi wax naan yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla waaw waaye na ngeen joxe ci li leen yàlla wërsëgal te def ko léegi nag te it ngeen jubli ci yàlla nag bu leen ko def njistal na ngeen def loolu balaa bis baa ñëw bis la boo xam ne su ñëwee boo jaayee du jarde xarit bu lay xettali dootoo ko am amul kenn ku lay defi waaw mu ne anfiqu mimma rasaxnaakum min xabli min xablu an yaatiya yawman laa bayoon fihi wala xulla ci suurtu baqara subhaanahu wa taala ne yow yonent bi alayhi salaatu mbir la mu yimu na su fekkee andi nañ la ñu andi doomu aadama yépp dajale leen ci kanam yàlla subhaanahu wa ah bis la bu yàlla dina penc ñoom de dina waxtaan ak ñoom keroog ay képp koo xam ne danga daan troxal jom aadama yi nekk foo xam ne yow doxagul woon dara ñu xëy fal la nga sànni say xarit yi nga daan àndal sans yeneen xarit yu bees ku la nga tëj sa téléphone soppi sa jikko bëggatoo xam kenn boole kook ñàkk kersa loo bëgg a def def ko ñi nga nekkaloon ay maas di ànd ak ñoom di daanoo ko jëkk daanoo ko jóg gëmatoo leen mel na yow danga changé sa bopp ci beneen anam beneen martaba ah àddinaa ngi lay nax wallaay da nga xam ne bés boobu du la jëriñ dara loolu mbir la moo xam ne bari na ci ñun doomu aadama yi waaye daal ah nañu xam ne keroog bés bu màgg lay doon moo tax suñ borom ne fa kayfa is jamaanaahum li yawmin laa rayba fii naka noonu itam nee na bis penc bu ñëwee bakkan bu nekk lépp lu mu liggéeyoon ci adduna dana ko fa fekk rek ñu teewal ko ko ci kanamam mu ne fa sëng nag su baaxee ah mu xam ne moo ko def su bonee it mu xam ne moo ko def ba koy def su kenn yëgutoon it yàlla yëgoon na ko moo ki malaakaam ñu bind ko rek tegal la fa rek ndax yaa ko defoon mu ne yow ma tàjjidu kullu nafsin ma amilat min xayrin muxdara subhaanahu wa taala ne yow yowmal qiyaam ah dina am ay kanam yoo xam ne keroog dañuy kontaan ndax yërmaande yàlla jañ nekke woon ak imaan ga ak jëf ji baax jañ daan def buñ leen indilee loo xam ne du dëgg ñu seet seen diggante seen boroom fexe ba tege ci dëgg suñ leen indilee loo xam ne lii day gaañ lor doom aadama te tegut ci yoon ñaar jotee ñu xool seen diggante ak seen tëddaayu bàmmeel xàtte mbir ma ci dëgg di moytu ay caaxaan di moytu tege ci loo xam ne nii yàlla bëgg ko ñi doon moytu loolu di jaar ci yoonu dëgg bisab keroog dañuy kontaan ndax jëf ju baax lañ leen di delloo keroog aljana lañ jëm waaye nag ñi nga xam ne nag ñoo xam ne ñoom dañ doon def lu bon di lekk alali jàmbur yi bu ñu leen dëgg ñu teg jël dëgg a teg ci suuf jël fenee teg ci kaw di jaayanteeg seen àdduna ci liñ bëgg seen bakkan di def lu leen neex ah keroog seen àdduna seen kanam ya day ñagas ñu tiit nag ñu xam ne ñoom seen jëf ji jëf ji bon la woon te fay seen pay mooy safara mu ne yawma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh subhanahu wa taala ne ah subhanahu wa wax nañu nee na am na bàkkaar yoo xam ne képp koo xam ne yaa ngi koy def waaw képp koo xam ne yaa ngi koy def nag di ne alal ji ñépp bokk nga jël ko mu wóor la ak càcc la wóore na ak triande la nit ñi yaakaar yow nga jël yaakaar yi doomu aadama yépp jël koy wa kenn nga yaakaar yaa ngi ci ngóor nag ndax nga sa bopp waaw xalal ju ñëw rek bu fekkee yaa ngi nekk kilifa wala nga nekk sa kër luñ la indil rek nga jël waaw doo daal dina waa ji jërëjëf te xamoo ba xaalis bu fu mu jógee xamoo alali jàmbur yu ñu dajale jox la la xamoo ko détourné kees la xamoo ko sàcc toj magasin jàmbur jox la la nga jël rek yaakaar na ne yaa ci nekk nag waaw waaye bàkkaar yoo xam ne yaa ko def te yaa ko tey wala nga jël magasin ab jàmbur toj ko sàcc ko ah ak façon sàcc bu mën a doon nag boo dikkee yomal xiyaam boo ñëw yomal xiyaam dañ la koy takkal mu ànd ak yow di nekk nag di kañang-kañangi comme ay jóolooli waaw su keroogee li nga sàccoon yépp dañ koy dajale takkal la ko si ndigg nag nit ñaa naan xooleen waaji waay mu ngi kañang-kañangi dekk ay comme jóolooli waaw moo tax mu ne waman yaxlul yaati bi maa xalla yowmal xiyaam subhaanahu wa taala ne dee mbir la moo xam ne ku nekk da nga ko mos te itam nag ku nekk da nga dee jant fenk fam daan fenkee jant so dara du xew àddina continuer ñépp nag a ñépp reer ñu fàtte la am na sax génn góor gu baax ku ram xam-xam boo xam ne nit ku yiw la ku set xam-xam la ku baax la yal nañ ko yàlla fayal di suñ magu daara mas naa dégg mu ne bis bi waa ji dee sax montor bi mu takkoon du taxaw dafay continuer di dox waaw su nekkee nag koo xam ne ku am situation la am benn sunaa bu du tuuti rek ci benn koñ daal di ci bind saw tur teg ca sa photo nag bu ko defee nag ñu fàtte la bu ko gaañu jëlee ci journal boobu xam ba ci caaf bu ñëwee caaf li ba mu jox ñu sànni ko ci poubelle bi bu ko defee ñu fàtte la nag soo de koo xam ne nag amoo maanaa far sax loolu yow doo ko am mbir la moo xam ne kenn ku nekk danga nga ci jaar waaw kon war nañoo fexe bay def lu baax ndax alquran ne kullu nafsin saaiqatul mawti wa innamaa tuwaffoona ujurakum yawmal qiyaam naka noonu subhaanahu wa taala ne koo xam ne weddi nga yàlla ñu ne déet nga weddi malaaka yi nga weddi téere yi weddi yonent yi weddi bés kooku réer nga réer goo xam ne ah bis bu bis booba jotee keroog nga xam ne sa borom amul caaxaan amul fo te moom li mu waxoon na ñëpp li mu na ñun ñëpp def na ko waaw ndax bind nañu def nañu ñu nekk ñu am xel def nañu ñu nekk ay ñoo xam ne lépp cër bu ñu war am jox nañu ko pour ñu yëngatu tànnal ñu yonent bi sallallahu alayhi wa kon nag di càggante gi ak def yi bon yeeg jubadi geeg lépp ñun ñoo topp suñu bakkan rek def ko waaye borom bi nag nañ xam ne dara réeru ko ci li ñuy def mu ngi xaar bés rek gaa ñi nag dafa mel ni bés penc moom dañ ko wóolootul wala gëmuñu ko waaye luy ñëw la de waaw luy ñëw la nañu bàyyi xel ci doxalin yi nañu bàyyi xel ci melokaan yi nañu bàyyi xel ci ëpp doole nit wan ko ko ki ëpp doole ñépp mooy subhaanahu wa taala te dina atte de bés penc luy ñëw la kon nag nañu bàyyi xel ci doxalin yi ak ci jikko yi jiima yërëmante suñu biir jiima jiima doxal dëgg su ko defee bu keroogee bu dajeeg suñu boram bu attee ba jotee bu keroogee kenn ku nekk li nga defoon incha allahu daañu ko fay asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.